أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسمك اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تواخذنا بما تعلمه منا يا عليم حققنا بحقائق العليم ويا عليم خلقنا بخلائق العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هز قلوب العارفين بأعاصير الشوق ونوع قلوب المحبين بدلائل العشق وأذاب مهج المتصوفين بألسنة نيران الحرق وصلى الله وسلم وبارك على سمي عمنا محمد المنصور سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والعارفين الذين سلكوا مسالك الرجال إخوة الإيمان عشاق رجال الله أيها الإخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فمن دواعي فرح المؤمنين الصالحين الذين يحبون أن تشيع صلاحية وإصلاحية من أي كان في أي كان ذكرى حياة بعد الصالحين wa mawaaqifihi al-ijaabiya fi al-insaaniyati wa fi jiiraanihi wa uxuwatihi at-tiiniya wa fi xidmatihi li baladihi wa fi xurmatihi wa takrimihi wa ricaayatihi alaa cuhuudihi baynahu wa bayna rabbihi baynahu wa bayna sunnati nabiyihi baynahu wa bayna xuquuqi al-abawayni al-akramayni baynahu wa bayna bani jinsihi al-bashariya baynahu wa bayna kaafati al-xalqi xatta al-xayawaanaati wan-nabaataati wal-jamaadaat li shiddati muraqabatihi li xaaliqihi fi kulli shayin wa fi kulli lahda kullu hadihi almaani ayuha alixwa min bacdi samarati alshajarati macrifatihi wa sabrihi wa tarbiyatihi wa sibgatihi taxta man warisa addabani rabbi fa axsana taadibi fa kaana sayidu alxalqi sayiduna muhammad alayhi salawatullahi wa salaamuhu muqaddimatan ula wa sayidu alxaaji malik alayhi rida xaaliqi muqaddimatun thaniya fa saaxibu mawduina sayidu lqawmi cheikhu lqawmi tawdu ljalalati sabra mulaazimu sanadi duniyan wa barzaqan wa uxra insha allah mufattishu tariqati tijaaniya manbacu lxikami miizaanu lxukmi miqyaasu lwaraci mixaku lrijaali waasitatu lmuxtaajiina atiyatu ltaalibiina farraatu shaaribiina alsayid alxaaji Mouhamadul Mansour najlu cheikh alxaaji Malick si alayhima rida rahman faman araada an yatadakkara bacda xarakaati hada almajdi aljabbaara wa afcaalihi alijabiya kaana kaman yucaddu xabbaati raml aw yatatallacu naxwa alsamaai liyacrifa aw yuxsaa kamiyata alnujumi walkawaakib walakin ayuha alixwa natawassalu bijaahi fadlihi wa faydihi طالبا من الحق سبحانه وتعالى أن يمدنا بنوره لنرى بعين البصر والبصيرة حقائق مناقبه فناتي بنقة نسبه حسبه تربيته ثقافته صبره تقرباته محافظة عهده ñun ñëpp ci ndigalu sëriñ Babacar ba la dugg ci sunu waxtaan kenn ku nekk def istighfar def astaghfirullah ñetti yoon ku mën bu istighfarul kabir bu mag bi nag moo ñu gënal nga teg ca fatiha salaatal fatixi jàng ñetti lixlaas yu ànd ak teewlu ak yëg tëje ko salaatal fatixi njëkk jàng gi ñu yéene koo jaamoo yàlla yal nañu ko yàlla nangul bu ko nangoo defal ñu ko hadiya ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yool bi nag mu joxal ñu ko sunu mbokk sunu xarit sunu wéttal woon sunu àndandoo di muhammadul habib sarr ak sunu way dawe jullit yépp yal na leen yàlla jéggal te yërëm leen ñun ñi fi desit te demaguñu yàlla ñu yàlla jéggal ndax dugg nañu ci ñaareelu tànk bi ñu ngi génn ci raxma ñu ngi dugg ci magfira ñu ngi génn ci fukki fan yu yërmande dugg ci fukki fanu njëggal mu des fukki fanu goreel yàlla ñu yàlla boole defal loolu ñun ñëpp bismillah ñuy ginnaaw bu ñu musloo ci seytaane rek ñuy sant borom bi subhaanahu wa taala cant nag tubaarakallaahu ñu di ko def ndax dañuy wax ne ashukru huwa aqrabul abwaabi lil wusuli ila allahi subhanahu wa taala dañu wax ni cant mooy buntu bi gën a jege ci doomu aadama pour mu àgg ci boroomam moo tax seytaane di ko fànq fu mu toll naan la aatiyannahum min bayni aydihim wa an aymaanihim wa an shamaa'ilihim wa min xalfihim wa an aymaanihim wa an shamaa'ilihim summa la tajidu aktharahum shakirin yàlla nee na euh, seytaane dafa wax ak borom bi ginnaaw dañu wax ni buntu cant moo gën a yomb pour àggale nit ki ci yàlla seytaan ni comme que noonu la danaa taxaw ci seen kanam taxaw ci seen ginnaaw taxaw ci seen càmmoñ taxaw ci seen ndeyjoor ba yàlla ñi ëpp ci ñoom du ñu la sant kon nag ñun ñi di ko sant ci ay anam yu bari ndax daaw Habib Sarr la woon ndax ñoo ko gën li ko li ko dal te ñun ñu di ko xaar lu tax yàlla yóbbu ko bàyyi ko fi ndax ci pexeem la wala ci sunu pexe la kon bu ñu yàlla mayee ñu nekk ak moom daaw mbir mi di dox ba ren fekkewu ko ñu fekke ko ñu war a sant yàlla xam ne du ci mën-mënam moom ki dem du ci sunu mën-mën ñun ñi fi des te ñi fi it bari na ci diggante bi kon ku dem ba fekke lu tam loolu nga war a sant su borom bu baax a baax li yazidaka ngir yàlla dolli na ndax la in shakartum la azidannakum yàlla neen bu ngeen santee rek ma dolli cant nag Abdul Aziz Ba yaa ngi ko bëgg a yemale ci alhamdulillah cant dalewul ci alhamdulillahi yemul ci alhamdulilahi cant dafay tàmbalee ci sa cër ak sa xol ngay wan ni yàlla lii dey maa ngi la ciy sant te nii la la ci sante ndax alayhi salaatu wasalaam mhm. ba ko yàlla ne li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika gaa muy julli gaañu ni ko waaw yow looy julleeti ndax yàlla jéggal na la li weesu woon te liy ñëwit yàlla jéggal na ko mu ne afala akunu abdan ndax duma nekk jàmm jàmbuy sant kon cant gi bu mu yem ci baatu alhamdu alxamdu yax rek la waaw waaye am na yuq yuq ba dafa war a feeñ xaj la ko tax a ngari ŋari cib yax du yax ba la ca biir yax baa tax waaw kon ñu sant yàlla bu baax ci sunu tële ndax cant yàlla it dafa war cib jaam ay yoon ndax ñun ñëpp ñëpp tële woon nu ñuy sante yàlla yàlla delluwaat jàngal ñu na koy sante loolu war na juraat geneen cant waaw ñun ñëpp tële woon sant yàlla jaaxle lool mu delluwaat xamal ni nañ koy sante kon cant yi ñu waral sunu war ci sunu digganteeg sunu borom dafa bari waaye du cant wax ak xalaat cant dafay génn ama bi ni'mati rabbika waaw xéewal gi nag dafay feeñ waaye yàlla may na ma nangam yàlla may na ma nangam te feeñul ci say cër feeñul ci sa jëmm amul solo euh, te feeñ googu nag mooy ñu waajal sunu bopp dana feeñ ci waxu góor gi ñu jëm waajal sunu bopp nag waajal defar sunu àdduna defar sunu alaaxira di sant yàlla bu baax mi nga xam ne moo yëngal xolu mag ñi yëngal xolu mag ñi ndax nee nañu taamu rijaali yadurru asibyaana wala yadurul atfaala ñamu mag dafay lor ña xale kooku waxin la danañ àgg ci biir tekki ko incha allah di julli ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla daf koy yónnee muy xuppe di bégle te yonent boobu nag mooy turandoo kii ñuy waaje a waxtaanee radiyallahu taala anhu di ñaan julli googu yàlla na ko yàlla wàcce ci njabootam wàcce ko ci saxaaba yi wàcce ko ci bépp jullit wàcce ko it ci aarifina alladina salaku masalika rijaali nit yàlla yi nga xam ni soobu nañu yoonu mag ñi di yëkkati kàddu jàmm duma jaaraat ci kàddu yi nañ ko ne ko sama mag waxe di sëriñ Mouhamed euh, sëriñ Mbaye Mansour yëkkati kàddu jàmm kàddu yërmande kàddu barke yàlla nañ ko yàlla boole defal dafa am ñoo xam ni siiwal lu bon dalee na neex surtout jamono bi ñu toll am na ñoo xam ni siiwal lu bon dalee na neex waaw lu bon ku nekk ñu ngi koy siiwal ndax li ñu tax a jóge ci jikko yi ñu nekk te duñ suñuy jikko siiwal ñu bon ñoo ne la ba far leen a nuru waaye alhamdulilah ba nga xamee ni ci biir nit yàlla yi am na ñoo xam ni siiwal lu baax dalee na neex ba ñu mën a roy ñooña ñooña nag ñi siiwal mën na nekk ci fu nekk mën na nekk ci ku nekk ñu fàttaliku. lenn walla kenn ci mag ñu baax ñi fi jaaroon ay taxawaayam ci doomu aadama yi benn mag nee na léegi zahaba naasu wa ma baqiya illa nay naas nee na nit amatul nit nit loo fi nekk waaye nit amatul waaye boo ko dee seetit góor amatul déedéet góor góor a nga ca góor yàlla yi waaw waaye góor góorlu rek moo fi am waaye góor amatul nit it amatul nit nit loo fi am góor googu nag taxawaayam ci defar nit taxawaayam ci digganteem ak ay dëkkandoom taxawaayam ci ñi mu bokkal deret ak ak aadamiya ñi leen yàlla binde taxawaayam ci réew mi ak xormaal gu mu ormaal réew mi teral gu mu teral réew mi sàmm gu mu mën a sàmm wóllëre ba ca jiitu di digganteem ak boroomam ba ca topp di digganteem ak sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ca topp di digganteem ak ay way juram ba ca topp di digganteem ak ñi nga xam ni ñoom moom la yàlla bindandoo ci suuf min min turab muy doomu aadama yépp ak mboolem ku yàlla bind xatal xayawaanaat sëriñ Mansour si radiallahu taala ba ci rab yi daf leen a teraloon rab yi boo ko daan fekk ci biir néegam ñu tegal ko muy lekk ne muus yooyu ware lu mu tibb tibbal leen ci fa tubaarakallahu kon kon fa tubaarakallahu kooku ku ku bàyyi woon xel boroomam la biñ ko laajee bu ñu laajee lu tax ñu ne li shiddati muraqabatihi fa bàyyi woon xel yàlla lool di fuug lu yàlla ci lépp nag ak ci jamono bu nekk loolu nag lenn la ci meññentu garab googu nga xam ni mooy sëriñ Mansour si radiyallahu taala anhu ci ñu xam ko xam muñam xamit yaram nan la yaroo ak nan lañ ko yare xamit sibxaam meloom couleuram waaye yooyu yëpp mu ngi ko teg ci la yàlla la sayduna muhammad waxoon ñu ne ko ku la yar mu ne yàlla yàllaa ma yar te rafetal na yar gi bañ ko laajee moom sëriñ Mansour mu ne ku yaroo ci yaruk yonent bi moo ma yar te yàlla yàlla yar yonent bi kon il faut que ma jéem a niru nirulu kii nga xam ni daf maa yar ci ni ñu yare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Seydi Alxaaji Malik si radiallahu taala anhu borom waxtaan wi nag tey mooy sayidul qawmi sangu-sang yi luñ ci wax nag luñ ci wax inchaa allahu taala danañ ko génne ci alquran ba ngeen xam ni waxuñu ko pour njureel wala ak jege lépp dafa tegu ci alquran cheikhul qawmi sëriñu sëriñ si tawdul jalalati sabran dafa meloon ni doj lay dal ci kawam te du yëngu ci muñ ak ci mën a dékku lépp luy loru doomu aadama taqoo nag ak sanadab muy seexal Al Hadj Malick moom ci dund ba Cheikh Al Hadj dem ñëpp toog di xaar ndeke moo koy wéttali ji ci barzaq foofu foofu moom Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour nekk ak baayam ba wuy ji boroomam waaye musta takkalikook moom mu dem ba wéttali ji ko ndeke barzaq waaye lii lépp it alquran na ko euh, sunu baay alxaaji ahmad dem sookoon nee na dafa mës a gis sunu baay Mansour mu ngi koy nettali ca bi góor gi faatoo ñu di ko denc bi sampa Mansour Fatou ñu di ko denc mu ne xaaj ma Mahamadul Mansour de waxoon na ma cig ndawam maag sama bàyyi ñoo bokk suuf suñu mooñee waaye lii wane na ko tey kon mu ngi koy wéttali ci barzaq ëllëg it incha allahu mooy wéttalam ñu ne Serigne Mansour radiallahu taala anhu mooy mu fattichu tariqati tijaniya mooy inspecteuru tariqa bi am nañ ci ay tegtal yu wér ku xaaji Malick jur wala ku nekkoon ci suufu keppaaram Serigne Mansour a bind la sa lijaasa ku mu jur ak ku nekkoon ci keppaaram ci mag ñi Serigne Mansour a bind sa lijaasa waaw mooy mambaxul xikami waxamit boo ko dégloo bàyyi ko xel jëriñu kese la misaanul mi boo dee atte ba ñëw ci sëriñ Mansour balance bi nga xam ni moom la yàlla di natte moom la yàlla natte atte moom la sëriñ Mansour yoroon moo mooy sëriñ Mansour ci boppam miqyaasul waraay waaw mooy nattuwaayu ñi fegu ba duñu àgg ci lu nexoru yàlla moom Serigne Mansour ñi sàmm dëgg-dëgg Serigne Mansour mooy seen nattuwaay kuy natt sa bopp ndax àgg nga ci càmm wala sàmm nga da ngay dem ci Serigne Mansour natt sa bopp mi xàqul rijaal yi mooy wokkuwaayu góoru yàlla yi ku xasanu rek te la xasan xamuloo ko fa ngay da wokk ji su du loolu du am lu la wokk yaa ni ku mànkele ci sa digganteeg sa borom te xamoo fooy jaar boo ñëwee ci moom mu ubbil la bunt yi nga dem waasitatul muxtaajina ku am sa soxla sa digganteeg sa borom it boo ñëwee mooy sa waasita mooy nekk sa intermédiaire sa digganteeg sa borom lépp sotti atiyatu taalibina ku mën a maye lépp lu mu tàllal loxo yàlla teg ci mu jox la bu dee maye du xool la mu lay jox daf lay jox ba nga doyal rek faraatu charibina géeju yàlla yit ku ci bëgg naan dawal ñëw ci moom mu wan la noo cay naane ndax amul benn tur wu aju ci tariqa bi wu aju ci tariqa bi muy fii ci Sénégal muy Fass muy feneen fu mu mënti doon te jaaruloo ci làmmiñu Sëriñ Mansour radiyallahu taala anhu moo tax am na jamono ña daan indi ay tur di ko ko nëbb mu ne ah gaa ñi di dañoo feragul ijji rek waaye tur yi yëpp li ma ci li ma fi ma ci jaar kenn du fa jaar kooku mooy kan mooy Sëriñ Mansour doomu Cheikh Alhaaji Malick loo foofu mu jaar nag bu ñu toogee nii dañ ciy waxtaan pour jox ci nit ñi xam-xam mu ngi mel ni ku janoog suuf ni dangay jël pepp suuf yi may ko nit dangay ngay tibb ba sonn lu te suuf du yëngu wala boog mu ne dafay jéem a wàññi biddiw yi ci asamaan waaye ñuy ñaan yàlla mi ko baaxe ci barkeem ak faydu yi mu wàcce ci moom ñuy ñaan yàlla mu may ñu ci leeram moom suñu boroom ak leeru sëriñ Mansour ñu mën a waxtaan ci loolu ñu jëloon nag ay nuqat ay point ay tomb ba ñu demee ba ci biir ñu ne tomb yi daf ñuy sonal ndax boo ko bëggee tomb lépp di nga yóbbu jóoru kayit yu dul jeex sëriñ Mansour fan la askanoo ngoram ñu bari dañuy ñëw ci moom naan gor dafay goor ci dara mu ne déedéet gor dafay goor ci ngoram waaye bu fekkee ni gor goor na ca dara bu dara jooje jeexee rek mu wut pexe sàmm kóllëre Seydi Hadj Mahamadul Mansour kuy sàmm kóllëre ba dem foo daan dal fekkoo fa kenn nga fekk fa benn miir bu daanu ba des tuuti nga ni kon nañ ma tàntal ma nekk fii waaye fii du ma fi toxoo bu doon ci jamonoy tey dana doy waar lool yooyu yëpp nag ñu ngi ko jële ci ñu maandu ñu dëggu ci seen wëllëre ak Serigne Mansour dëggu it ci seen wax ak seen jëf kon ñu dugg ci askanu Serigne Mansour si radiallahu taala anhu kuy bàyyam Cheikh Al malik kuy bàyyu Cheikh Al Hadj Malick maam Ousmane kuy bàyyu maam Ousmane Mouhammad kuy bàyyu kooku Ali kuy bàyyu kooku Yuusuf as-Siini mu nga dëkk ca Siin watanan alxalxami yu aslan waaye cosaanam mu nga bàyyi koo xalxam ndax euh, Mouhammad Yuusuf Siini boobu mu ngi askanoo ci doomu Chamsuddin alxalxami yi ñu gàttal ci foofu rek ndax bëgguñu ko topp ndax am na loo xam ne li moom Maodo dawoon na ko muy askanoo ci yonent bi te loolu am na am na am na waaye moom dafa am nu mu nu mu ko ko gënale fa tubaarakallahu teewul noo mu ko bëggee woon am na ko ndax alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ni yaa bani hashim bu ma nit ñi indil seen jëf ngeen di ma indil seen askan Muhammadul Ghazali bindkat ba fiiree ko ni sëriñ Bay Mansour day bàyyam bii ñuy waxtaan ne añoon na kon jaratul sëriñ Bay di añ ndax sëriñ mën na doylu ci loolu Bay Mansour naanoon na na sëriñ bañ a naan doyloo naanuk sëriñ Mansour moo tax askano ci yonent bi te nuru woo ko it amul solo sëriñ Mansour boobu radiallahu taala anhu waajuram wu jigéen di tudd maam Safiyatu ñan sunu mag ji moom ma ko gën a xam incha allahu danañ ma ko gën a leeral doomu ngañ xari Mbàkke sëriñ Mansour radiallahu taala anhu mu ngi juddu Tiwaawan la juddoo 1900 la juddu waaye foofu nag wax ngi fi sëñ Mansour mu ngi judd Tiwaawan la juddoo 1900 la judd topp ci sunu bàjjan bu ñuy wax soxna Roqaya Malick maam sa féetu dafa bokkoon ci njaboot goo xam ni dañu ñaanaloon ay baayam walla ay maamam bu ñu jur góor waaw loola topp maam sa féetu ba bi mu ñëwee Tiwaawan sunuy nopp moo tax sëriñ Mansour dafay wax ni muraat la wala bokk ñaan gu nangu la bi ñu demee ba jëmmi jamono Cheikh Al Hadj dajale lu mat juróom-ñaari nit jox leen ay dog pour ñu ñaan loolu fi lañ ko fekk ba ñooñu demee di ñaan maam Hadj Malick desa ak boroomam mu war a am suwa. yonent yàlla Zakariya amoon na choix mag ñu baax ni am nañu choix Seydina maam Ibrahima am na choix choix boobu nag tànn am na bëgg-bëgg ba ca njëkk mooy habli waliyan yarisu ni wa yarisu min ali yaquba wajalhu rabbi radiya yonent yàlla Zakariya dafa tollu ci téeméeri at jabar ji toll ci juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent wala ak juróom amuñu doom mu janoog yàlla ni ko may ma nag doom may ma doom waaye ñuy seet lan lay ñaan doomu lan lay ñaan mu ne wéttal la bëgg ndax dafa wéet ndax bu fi jógee it doom jooju mën a taxawu diine mu demaat ba ca biir mu ne rab rabbi la tadarni fardan sama borom man de wéet naa bëgg naa ku ma wéttali wéet naa bëgg naa ku ma wéttali gaa ñu baax ñi ni hab lana min azwajina zurrata qurrata ayunin zurriyatan min min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin yow yàlla may ñu ci suñu soxna yoo xam ne danañ leen dalale suñu xel ak suñu bët te yàlla wajaal na wajaal na min al muttaqin yàlla yàlla ñu def ñu nekk nag njiitu ragal yàlla ñu waaye maam Ibrahim moom soxlawul ku ko yàlla di formeel dafa bëgg ku yàlla formé ba pare ah. foofu la mbir mi nekk moo tax mu ne ko yàlla rabbi habli min as-saalihiina xam nga këli def ni waj'alhu bi radiyan yow yàlla ki may may yàlla na nga ko def muy nangam ak nangam kon kooku ku ñu ñaan la pour yàlla génne ko pour waajale ko mu mel nii mu mel nii waaye dafa am góor yàlla yu yàlla pare ba pare teg leen di xaar ñu leen soxla mu jox leen bu ñu demee ci ruuxul bayaan mu ngay firi rabbi habli min alsaalixiina nee na waladan kaamil alsalaaxi azima sha'ni danga may may yow yàlla ci suñu baax ñi ku baax koo xam ne kii dafa yiw ci biir ak ci biti waaye nag mbiram mbir mu rëy lay doon te mustaidan yow yàlla nanga ma may ci ñi nga pare pour ñuy taataan sag leer di wàcc ci seen xol direct ba ñu am benn intermédiaire résultat bi ñu am ban ñaan la ñu booleel. damay laaj dama wax ñetti ñaan ñeenti ñaan kii yàlla daf ko nii may ma ku ma doon wuutuma ci lii ma nekk kii ni yàlla wéet naa wéttali ma ñii ni yàlla may ñu suñu ci sunu soxna yi njaboot gu baax kii ni yàlla ci sa góor ñi nga pare pare ba pare ba bu ëllëgeek si biir sa fayda dafay wàcc ci ñoom direct ci seen xol te du am benn intermédiaire ñun suñu kii ñuy waxtaane muy résultat bi ci ci fan ngeen koy yéege bu mujj bi ok nag damay wax di laaj de damay wax di laaj xam naa ni maa ngi koy jéggalu bu baax a baax kon ñu gis ni Sëriñ Mansour radiyallahu taala anhu ku yàlla préparé le woon boole ko ci niti boppam yi pour que ku ci soxla ku soxla ci nitam yi mu jël ci ñooña may la moo tax Ibrahima xam na ni yàlla du jeexal mu ne yàlla hab lii mina as-saalihina may ma ci sa ñu baax ñi ñi nga pare pare ba pare pour sa bopp Cheikh Al Hadj foofu la yéegee xelam ni ca la ñooña la bëgg sëriñ Mansour radiallahu taala anhu bi mu demee ba war a toll ci jàng baayam dalal ko alquran ba mu sori mu teg ko ci loxol ku ñuy wax sox sayar gay waaye lépp Cheikh Al Hadj ko ko àggale mu wattu alquran nag ci ndaw wattu alquran ci ndaw la ñu ca xamoon mooy ku wattu alquran jàngi yaa ngi xam-xam soog di mën a tàmbali bind leetar waaye sëriñ Mansour dafa wattu alquran rek commencé bind leetar Ah, kon ñu julli ba pare incha allah. kat tuuti rek ci li ñu weesu woon ndax ñu mën ko jàppaat euh, ndax waxtaane nit yàlla lu am solo la ci ñu bàyyi xel ci suñu bopp ñu ngi tàmbali woon ci Mansour Malik radiyallahu taala anhu ni àddunaam yépp mook baayam a taqoo ba bi baayam demee it moo ko wéttali ji ci barzaq nekk ak moom ëllëg it insha allahu ñooy nekk waaye benn mag sëriñ Mansour si radiallahu taala anhu dafa wax ak moom booba sëriñ Mansour xale la sunuy nopp booba xale bu tuuti la muy alxaaji Ahmad Dem bu Sookoon yéen ñëpp xam ngeen borom xam-xam la ku ragal yàlla la nitu yàlla la mu ne daf ko mësa fekk tiwaawan ci wetu baayam ñu toggi waxtaan mu ne ko man maag sama baay ñoo bokk suuf suñu mooñe loola di dox ba Cheikh Alhaaj Malick dem loola di dox ba Cheikh Seydi Alhaaj Mahamadul Mansour jóge fi di wuy ji boromam ñu di ko denc ci wetu baayam góor gi taxaw fàttalikuwaat ni moo ne Mansour la ma waxoon di am na nga gis ni limaam Ibrahim alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni mooy maamu Sayyiduna Muhammad ñaanoon yàlla ni ko nag ma may ci sa gaañu baax ñi ñu firil ñu gaañu baax ñi ñooy ñan mooy ko xam ne kii lépp ma mat ci yow ba pare mu nekk boroomi mbir mën a dékku it leeru yàlla yi nga xam ni dana wàcc ci xolam ëllëg direct ba pare nag mu nekk wéttalam ci àdduna nekk wéttalam alaaxira mu amee ko ci Ismaayil ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan googa nag Cheikh Al Hadj Malick di dox ba jëmmi jamono la daloon Zakaria dal ñeneen dal Ibrahim na mu ñaane woon moom Cheikh euh, moom maam Ibrahima Cheikh Al Hadj Malick toog ci ni maam sa féetukat ñoom ñu ngi yàgg te amul bant ndeke ñaanu mag la woon bu yàgg ci ni ñi waruñu am doom ju góor ju war a doon loola di rogalaat ba ci moom moom Cheikh Al Hadj mu tànn juróom-ñaari nit ci mag ña mu nekkaloon jox leen ñu ñaan waaye mu wéet yàlla juróom-ñetteel gaaña yàlla juróom-ñeenteel leen muy ñaan kenn ci nit yàlla yi waaye moom pas-pasam yéeneem mooy mu yàlla jox ko ci ñi mu wutal boppam. xam nga nit dana wut yàlla ba yàlla defar ko waaye yàlla dafa am ñu mu tànn ba pare nit ñi ñoom man maa leen defaral sama bopp du ñu como foofu nag fi la góor gu baax gi ñuy waxtaane juddoo mu tàmbali bi mu ma teddal jàng tàmbali jàng ci loxol waay juram di dem bàyyam di ko awante ak ku ñuy wax sayar gay mag ci mag ñi la bokkoon moom mi dana am foo xam ni fa la nekkoon ba faatu moom Sayer gay mii muy daara ji sama mag ji dëkkee danañ ci dikk incha allah mu wattu teel a wattu alquran war a dari xam-xam waaye dalul xam-xam xanaa tàmbali di bi moom ba du am ja temps wu tàqalikoo ak moom sàmm kóllëre xaaj Hadj Mahamadul Mansour kuy sàmm kóllëre ba dem foo daan dal fekkoo fa kenn nga fekk fa benn miir bu daanu ba des tuuti nga ni kon nañ ma tàntal ma nekk fii waaye fii du ma fi toxoo bu doon ci jamonoy tey dana doy waar lool yooyu yëpp nag ñu ngi ko jële ci ñu maandu ñu dëggu ci seen wëllëre ak Serigne Mansour dëggu it ci seen wax ak seen jëf kon ñu dugg ci askanu Serigne Mansour si radiallahu taala anhu kuy baayam Cheikh Alhaaj Malick kuy bàyyi Cheikh El Hadj maam Ousmane kuy bàyyi maam Ousmane Mouhammad kuy bàyyi kooku Ali kuy bàyyi kooku Yuusuf as Siini mu nga dëkk ca Siin watanan alxalxami yu aslan waaye cosaanam mu nga bàyyi koo xalxam ndax euh, Mouhammad Yuusuf Siini boobu mu ngi askanoon ci doomu Chamsuddin alxalxami yi ñu gàttal ci foofu rek ndax bëgguñu ko topp ndax am na loo xam ne li moom Maodo dawoon na ko muy askanoo ci yenent bi te loolu am na am na am na waaye moom dafa am nu mu nu mu ko ko gënale fa tubaarakallahu teewul noo mu ko bëggee woon am na ko ndax alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ni yaa bani hashim bu ma nit ñi indil seen jëf ngeen di ma indil seen askan Muhammadul Ghazali bindkat ba fiiree ko ni sëriñ Bay Mansour day bàyyam bii ñuy waxtaan ne añoon na kon jaratul sëriñ Bay di añ ah. ndax sëriñ mën na doylu ci loolu Bay Mansour naanoon na na sëriñ bañ a naan doyloo naanu sëriñ Mansour moo tax askanoo ci yonent bi te nuru woo ko it amul solo sëriñ Mansour boobu radiyallahu taala anhu waajuram wu jigéen di tudd maam Safiyatu ñan sunu mag ji moom ma ko gën a xam incha allahu danañ ma ko gën a leeral doomu ngañ xari Mbàkke sëriñ Mansour radiallahu taala anhu mu ngi juddu Tiwaawan la juddoo 1900 la juddu waaye foofu nag wax ngi fi sëñ Mansour mu ngi juddu Tiwaawan la juddoo 1900 la judd topp ci sunu bàjjan bu ñuy wax soxna Roqaya Malick maam sa féetu dafa bokkoon ci njaboot goo xam ni dañu ñaanaloon ay baayam walla ay maamam bu ñu jur góor waaw loola topp maam sa féetu ba bi mu ñëwee Tiwaawan sunuy nopp moo tax sëriñ Mansour dafay wax ni muraat la walla boog ñaan gu nangu la bi ñu demee ba jëmmi jamono Cheikh Al Hadj Malick dajale lu ma juróom-ñaari nit jox leen ay dog pour ñu ñaan loolu fi lañ ko fekk ba ñooña demee di ñaan maam Hadj Malick desa ak boroomam mu war a am suwa yonent yàlla Zakariya amoon na choix mag ñu baax ni am nañu choix Seydina maam Ibrahima am na choix choix boobu nag tànn am na bëgg-bëgg ba ca njëkk mooy habli waliyan yarisu nii wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya yonent yàlla Zakariya dafa toll ci téeméeri at jabar ji tollu ci juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent wala ak juróom amuñu doom mu janoog yàlla ni ko may ma nag doom may ma doom waaye ñuy seet lan lay ñaan doomu lan lay ñaan mu ne wéttal la bëgg ndax dafa wéet ndax bu fi jógee it doom jooju mën a taxawu diine mu demaat ba ca biir mu ne rabbi la tadarni fardan sama borom man de wéet naa bëgg naa ku ma wéttali wéet naa bëgg naa ku ma wéttali gaa ñu baax ñi ni hab lana min azwajina zurrata qurrata ayunin zurriyatan min min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin yow yàlla may ñu ci suñu soxna yoo xam ne danañ leen dalale suñu xel suñu bët te yàlla wajaal na wajaal na min al muttaqin yàlla yàlla ñu def ñu nekk nag njiitu ñu ragal yàlla ñu waaye maam Ibrahim moom soxlawul ku ko yàlla di formeel dafa bëgg ku yàlla forme ba pare ah. foofu la mbir mi nekk moo tax mu ne ko yàlla rab rabbi habli min as-saalihiina xam nga këli def ni rab bi radiyan yow yàlla ki may may yàlla na nga ko def muy nangam ak nangam kon kooku ku ñu ñàan la pour yàlla génne ko pour waajale ko mu mel nii mu mel nii waaye dafa am góor yàlla yu yàlla pare ba pare teg leen di xaar ñu leen soxla mu jox leen bu ñu demee ci ruuxul bayaan mu ngay firi rabbi habli min alsaalihiina nee na waladan kaamila salaahi azima sha'ni danga may may yow yàlla ci suñu baax ñi ku baax koo xam ne kii dafa yiw ci biir ak ci biti waaye nag mbiram mbir mu rëy lay doon te mustaidan yow yàlla nanga ma may ci ñi nga pare pour ñuy euh, taataan sag di wàcc ci seen xol direct ba ñu am benn intermédiaire résultat bi ñu am ban ñaan la ñu booleel. damay laaj dama wax ñetti ñaan ñeenti ñaan ah. kii yàlla daf ko nii may ma ku ma doon wuutuma ci lii ma nekk kii ni yàlla wéet naa wétt ma ñii ni yàlla may ñu suñu ci suñu soxna yi njaboot gu baax kii ni yàlla ci sa góor ñi nga pare pare ba pare ba bu ëllëgeek si biir sa fayda dafay wàcc ci ñoom direct ci seen xol te du am benn intermédiaire ñun sunu kii ñuy waxtaane muy résultat bi ci ci fan ngeen koy yéege bu mujj bi kañ man nag damay wax di laaj de damay wax di laaj xam naa ni maa ngi koy jéggalu bu baax a baax kon ñu gis ni Serigne Mansour radiyallahu taala anhu ku yàlla préparé le woon boole ko ci niti boppam yi pour que ku ci soxla ku soxla ci nitam yi mu jël ci ñooña may la moo tax Ibrahima xam na ni yàlla du jeexal mu ne yàlla hab lii mina as-saalihina may ma ci sa ñu baax ñi ñi nga parepare ba pare pour sa bopp Cheikh Al Hadj foofu la yéegee xelam ni ca la ñooña la bëgg sëriñ Mansour radiallahu taala anhu bi mu demee ba war a toll ci jàng baayam dalal ko alquran ba mu sori mu teg ko ci loxol ku ñuy wax sa sayar gay waaye lépp Cheikh Al Hadj ko àggale mu wattu alquran nag ci ndaw wattu alquran ci ndaw la ñu ca xamoon mooy ku wattu alquran jàngi yaa ngi xam-xam soog di mën a tàmbali bind leetar waaye sëñ Mansour dafa wattu alquran rek commencé bind leetar Ah, kon ñu julli ba pare waaw allah kat tuuti rek ci li ñu weesu woon ndax ñu mën ko jàppaat euh, ndax waxtaane nitu yàlla lu am solo la ci ñu bàyyi xel ci suñu bopp ñu ngi tàmbali woon ci Mansour Malik radiyallahu taala anhu ni àddunaam yépp mook baayam a taqoo ba bi baayam demee it moo ko wéttali ji ci barzaq nekk ak moom ëllëg it insha allahu ñooy nekk waaye benn mag sëriñ Mansour si radiallahu taala anhu dafa wax ak moom booba sëriñ Mansour xale la sunuy nopp booba xale bu tuuti la muy alxaaji Ahmad Dem bu Sookoon yéen ñëpp xam ngeen boroom xam-xam la ku ragal yàlla la nitu yàlla la mu ne daf ko mës a fekk tiwaawan ci wetu baayam ñu toog waxtaan mu ne ko man maak sama baay ñoo bokk suuf suñu mooñe loola di dox ba Cheikh Al Hadj Malick dem loola di dox ba Cheikh Seydi Hadj Mouhamadul Mansour jóge fi di wuy ji boromam ñu di ko denc ci wetu baayam góor gi taxaw fàttalikuwaat ni moo ne Mansour la ma waxoon di am na nga gis ni limaam Ibrahim alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni mooy maamu Sayyiduna Muhammad ñaanoon yàlla ni ko nag ma may ci sa gaañu baax ñi ñu firil ñu gaañu baax ñi ñooy ñan mooy ko xam ne kii lépp ma mat ci yow ba pare mu nekk boroomi mbir mën a dékku it leeru yàlla yi nga xam ni dana wàcc ci xolam ëllëg direct ba pare nag mu nekk wéttalam ci àdduna nekk wéttalam alaaxira mu amee ko ci Ismaayil ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa ñaan googa nag Cheikh Al Hadj Malick di dox ba jëmmi jamono la daloon Zakaria dal ñeneen dal Ibrahim na mu ñaane woon moom Cheikh euh, moom maam Ibrahima Cheikh Al Hadj toog ci ni maam sa féetukat ñoom ñu ngi yàgg te amul bant ndeke ñaanu mag la woon bu yàgg ci ni ñi waruñu am doom ju góor ju war a doon loola di rogalaat ba ci moom moom Cheikh Al Hadj mu tànn juróom nit ci mag ña mu nekkaloon jox leen ñu ñaan waaye mu wéet yàlla juróom-ñetteel gaaña yàlla juróom-ñeenteel leen muy ñaan kenn ci nitu yàlla yi waaye moom pas-pasam yéeneem mooy mu yàlla jox ko ci ñi mu wutal boppam. xam nga nit dana wut yàlla ba yàlla defar ko waaye yàlla dafa am ñu mu tànn ba pare nit ñi ñoom man maa leen defaral sama bopp du ñu comoo foofu nag fi la góor gu baax gi ñuy waxtaane juddoo mu tàmbali bi mu ma teddal jàng tàmbali jàng ci loxol way juram di dem bàyyam di ko awante ak ku ñuy wax sayar gay mag ci mag ñi la bokkoon moom mi dana am foo xam ni fa la nekkoon ba faatu moom Sayer Gaye mii muy daara ji sama mag ji dëkkee danañ ci dikk incha allah mu wattu teela a wattu alquran war a dari xam-xam waaye darul xam-xam xanaa tàmbali di bind ay leetar ba benn bis mu ne mu yoo woo góor gi mu saañan rahmatullahi alayhi daal di koy yónni ci Cheikh Alhaji Malick ni ko dafa bëgg jàngi Cheikh El tontu ko ni ko waxal sa mbokk na toog ak man pour mu xam nit ñi foofu nag mbir la xam nga nitu yàlla yi nit nit ñi yàqal dañu bari nekk nitu yàlla ba pare te jàppoo kenn ku ah, ñëpp dëgg la ñuy wax doo wind doo doo seet kenn ñëpp lu ñu wax rek dëgg la bari na nitu yàlla yu ci yàqule moo Cheikh Cheikh El waxul ni dafay jàngal sëriñ Mansour daf ni ko toogal ma xamal la nit ñi ba bu ëllëgee ñu bañ la war mu ni ko li yaarifa nnaasa xatta laa yaxtarra bihim ba mu bañu waru ci nit ñi waaye njàng mi mu soxla yàlla dana ko jàngal sa yuallimuhu llahu ma araada an yaalam lu mu bëgg yàlla dana ko xamal noonu la ko Serigne Mansour waxee ñu sukkandiku ci ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni mattaxada allahu waliyan illa allamahu yàlla ku mu def xarit jàngal na la te it wa taqullaha wa yuallimukumullahu te it wa allamnaahu min ladunna ilman kon waxu Cheikh Al Hadj Malick bi waxu ko rek ni doomam la waaye daf ko teg waxu ci waxu ku waxu ci waxu koo xam ne kii waxam lu waxu la muy waxu sunu borom subhanahu wa taala bi nga xam ni dafa yónni ndaw te ndaw loolu la yantiqu in huwa waaw yonent bi du jum mukk boo wax waxam lu mu wax yàllaa ko wax te moo ni mattaxada allahu waliyan illa allamahu sëriñ Mansour toog di di toog ci wetu baayam moo tax radiallahu taala anhu moom moo ñuy jox fu ñuy sukkandiku ba wax la mu la mu meloon digganteem ak baayam waxu ko nag pour puukare wa ko waaye daf ko wax shukran lillahi ndax shukrul wasaiti fa kayfa bi man waaw kañ kon mu ne wa baatama xibta wajhu dahri munbasitun lana bi wa faydika wattaysiiru masruudu ayqaztana zamanan yaati bi maxbarihi wa kaana fiha idan linnaasi tar diidu idan linnaasi tar waaw kon la ko bàyyam waxoon ni nit ñi da nga leen di xam lu dul loolu ñu war la ndeke deng deng jooju nekk ci biir nit ñi nee na la ma sama bàyyi waxoon ca dundam de man Mansour dund naa ko tey fi ma toll moo tax mu ne kullul ishaaraat junj yi ma sama bàyyi doon junj yëpp tey bëccëg la ci man lépp laa gis fama lil layli shakkun waaw kon lam ko waxoon ni toogal ma jàngal la nit ñi dem na ba teg ci bëtu boppam wa baadama xibta ginnaaw bi nga fàddoo de sëriñ wajhu dahri bun basitun àdduna nag yaatu na ci man lépp nag ci sa may may gi nga xam ne gi dafa jàppandi lool waaye yeewoon nga ma jamono man Mansour wax ma loo xam ne mu ngi dikk dikki googu nag da ko waxoon ci mustaqbal futur la woon ma yaakaaroon ni di ko fekkee ndeke doo ko fekkee ndax waaye li nga ma waxoon lépp man man su teg naa ci sama bët tey wa kaana fiiha idan linnaasi tardiidu nit ñi dañuy di wax lii tey tey ñu bàyyi lii wax tey li tey bu bu bu jàngul woon loola rek am lu xew moo tax mu ne ko kullul ishaaraati ay waay bàyyi junj yi ma daan junj te àggale woo ko yëpp ndeketeg naa ci sama ba tey lépp mel na ni bëccëg ci man mu dem ba ca biir daal ne fii kulli yawmin fii la waxoon lana lawxun na la ma waxoon ni àdduna alluwala ju dul mokk te nit ñi àdduna bu dul mokk lañu kon de alluwa jooju tey dikk na bàyyi maa ngi koy fàttaliku bis bu nekk nag nag maa ngi ciy fàttaliku bis bu nekk di gën di tegu ci yoon kon ñu gis ni li mag ñu wax ci Cheikh Al Hadj ak doomam Mansour malik fi mu ko jaarale ak ni mu ko jàngale àdduna ndax àllu àdduna dafay àll wa dul mokk ci nit ñi te nit ñi itam ñu mokk mukk léeg-léeg ñu ñuul léeg-léeg ñu comme ni big yi wuutee noonu la nit ñi wuutee waaw ñu sukkandiku foofu ci loolu sëriñ Mansour mokkal alquran la def waaye téere bu papam mës a am moo ko ko yëral wa kaana yutaaliu wa yaqra'u li cheikhi jamii al téere bu tegu tegu ci loxol baayam rek moo ko yëral baayam min al min al de A à lépp moo ko ligal moo ko liral wa yaktubu rasaila di ko bindal ay leetar te booba kat jàngagul laxdar booba dalagul laxdar yu booba dalagul laxdar de foofu la mbir mi nekk di ko bindal ay leetar mu di ko jàng bi nga xamee ni bi Mouhamad Nazifi ngënk la ci ngënki ti euh, tariqati tijaniya bi mu bindee Cheikh Al malik Malick leetar Cheikh Al Hadj dafa yëkkati leetar ba jox ko sëriñ Mansour Malick ni ko jàngal leetar bi sëriñ Mansour jàng ba pare mu ne ko tontu ko ba mu tontoo leetar ba dem Mouhamad Nazifi yónnee ci Cheikh Al Hadj Malick ni ko dal arab bi Cheikh Al Hadj bind. yéem na ko ñu ne ko moo ne bind ko doomam ko bind te bu doom ji kat fukki atam ak lu topp ma tagul moo tax mu ne kaana yaktubuha bi ajmali uslubin wa aqwami afkaarin bi arabiyatin yujizu an taabiri biha al arabu dëgg-dëgg walam yabda taallum walam walam yabda taallum al axdar yi ni ko kii kat moo bind wax ju rafet ji wax ji nga xam ne arab yi ci seen bopp sax mënuñu ko ndax arab yu rafet ku ko weddi xoolal xoolal rek chiaram xoolal wayam xoolal rek arabiya bi ni mu ni mu neexee fa tubaarakallah kon loolu it di jagle gu yàlla jagleel Serigne Mansour bul dem dama lay jàngal adduna ndax alluwam du mokk boo toogee yàlla dana la xamal nga dem bay bindante ak ngënki tariqa bi ñu yéemu ci leetar yi nga bind ba defe ni sa bàyyi ko bind ndeke yow yaa ko bind te boobu amaguloo fukki at ak ñaar kon kooku kon mooy Serigne Mansour ci wàllu juddu léegi wax naa leen sànq ni gorek Serigne Mansour dama ko tënk rek pour ni li wax naan neen gor dafay goor ci dara nee na loolu taxul nga gore da nga goor bu jeexee rek nga goreeti waaye gor dafay goor ci ngoram boo ñàkkee gore boo amee gore bu ko defee nag ñu ñëw ci yar bi ñu yar Serigne Mansour yar nag euh, ni ko nit ñi jàppe dafa wuute Serigne Mansour baayam daf ko yar qabla al wiladati wa baada al wiladati baayam daf ko yar avant muy juddu yar ko bi mu juddoo nekk ak moom te du juum mukk ci waxam moom Cheikh Al Hadj Malick du juumit yëfandikoom daf ko teg ci yoon rek waaye ba mu demee it moom am na yar bu mu yar boppam yar yarkat yi dañuy wax ni yar benn nga yar nit ki ci wàllu matière am wala nga yar ko ci wàllu ruu waaye alquran moom dafa ñëw boole ñaar yëpp waaye ci biir yar googu it tarbiyat tarbiyatu tarbiya bil himma dafa am ak tarbiya bil xaal yar nit ki ci yitte ak yar nit ki ci melo waaye moom dafa jëloon himmam yare ci boppam bil xaali tarbiyatul himmati bil xaali la def moom waxul tarbiyatu bil himmati wala taxul bil xaali dafa def tarbiyatul himma bil xaali kon yar nga xam ni mooy moyen bi gën ci nit ki pour mu am jeexital ci nit ki mooy ki yar am na mu mel ba ki ngay yar du tal lu dul loola yar na ko ci jikko formé ko dama bañ a guddal ndey yar am na fu ñu ko mën a jaare ba mu gën a aw yoon waaye bañ a guddal te yam ci lii tàggat ko ci bakkanam ba mu tàggatu ndax Abdou bakkan ñett rek la ñett benn bi mooy mu mooy loola yàlla munu koo moy munu munu la caa moyloo mu fekk lu la yàlla daganalal mu fexe ba nga moy ca yàlla munu ko mu fexe topp nga ngay topp yàlla mu mooy loola ca yàlla munu ko mu fekk lala yàlla sànnil ci sa xol mu fexe caa jaxasoo ba nga fàttee rek la sa bopp ba wax lu ëpp góor gi nag téye sëriñ Mansour ci wàll googu tàggat ko ci ba bu amee comme ni ma waxee woon gore bu ñàkkee gore bu dee topp yàlla it du ca gis boppam lu muy def du ca gis boppam ngir régler boppam rek yu xaasibu sa danañ dikk Seydi Hadj Malick nag nekk jëmm joo xam ni talatul boppam ndax nawleem la nekkal waaw lootul doom nawle la doom doom du doom nawle la xam nga damay wax sëriñ maa ngi jéggalu ñun ñi fi toog ñëpp a maase ñëpp a maase même ki ci biir ndeyam te juddoogul sax a maase ak ñun ñun ñëpp a maase ah kenn magul kenn ndax jëfi kenn la moo tax kenn magul kenn ba yàlla di wax ba yàlla di wax alastu bi rabbikum ku desoon ñëpp ni bala kon doxal maa ngi ñëw rek la comme que ñu ñëpp wuyu woon ca yàlla ba yàlla ne ndax duma seen borom ñëpp ni waaw man ñu na waaye ña ko ni woon jàkk ñoo talul geesu keneen waaye ñu sëggoon di foo di foye seen pilim ci jàngkat yi jàngkat yi moom xam nañ ci dara boo nekkee ci sa biir classe di jàngale di expliquer leçon étudiant élève ba nekk ci biir classe ba toyor bigam di foo dégluwu la ak bàyyi kala bàyyi xel bu demee ba ñu joxee feuille yi nag pour nga loolu ñuy wax examen ñoom ñaar kan nga ci gën a am yaakaar ah kon ke doon déglu waaye bokkul ak ko doon fo moo tax mu ne euh, gor du geesu ala innama al amalu bis bul way bi sabri wa tuqa waaye wala taltafit innal karima xayru nee na gor bu jógee ci dara du geesu moo tax ñu ne woon njàkk yàlla ba tey geesu wu ñu xooluñu keneen yàlla rek la ñuy xool waaye ña toogoon nag bàyyi wuñu yàlla la mu doon wax ba ñu géwee ci àdduna la ñu tukkal àdduna waaye ñun ñëpp a maase kon Seydi Xaaj Muhammad Xaaj Malik nekk ci kanamu Alaaji Mansour gën a jub loolu ngeen di wax leeg reegal loolu ngeen di natte mu gën ko jub sëñ Mansour nag topp Xaaji ci doxalinam di jonjook moom ci jikkoom ba mujj gi mu nekk photocopie Cheikh Al Xaaji Malick ci wax ci def ci bàyyi ci dimbalante ci côté bu nekk ci dëggu ci wóor ci tedd ci nekk jàmbaar ci képp koo xam ne ki yaa ngi nar a taxaw ci kanamam ak boroomam mu nuru ci baayam ci lépp nag moo tax yuxaatihi xuluqiyan bal tantabiu fi nafsihi wa ixsaasi suuratahu alqawliya walfialiya fa huwa radiallahu anhu nachaa ala sidqi moom Serigne Mansour mu ngi màgg ci dëggu wal amaanati ak wóor wal karami ak tedd nga wal shujaati ak nekk jàmbaar wal iffati ak fegu fegu li jafe fa laqad tarabba radiallahu anhu mu ngi yaroo nag ci keppaaru baayam bi nga xam ne bi moo ko yar jàngal ko ba jox ko nag wegeel ak dal sëñ Mansour ku dal la woon ku dal la woon loo indi ci moom mu dal ba xam yow waa kan muamalatu naas yi jëflanteeg nit yi itam léppam ci yàlla la ko tegoon wa siyaasatan di ko def nag bi siyaasati loolu ngeen di wax politique politique ni mu mel nii melu ni woon politique du du woon lal fen lalu ko woon politique dëggoo ko laloon muy jëflanteeg ñépp ci dëgg moo tax mu delluwaat ni ko wa anta aydan murabbin nafsa muslihuha wa li minka irshadun ba tey mooy seede dolli ko ci li ñu jële ci nit mu ne bàyyi yow de ku mënoon tàggat bakkan tàggat nga bakkan yëpp yëpp yëpp yëpp man de li ma jële ci yow mooy njub rek talatuma jàdd ndax amatuma jotam mu ne ko waaw mu ne ko ruttan nufuusa sa yamalewoo ko ci man nag مت منه المكايد كإبليس فابتسمت آدما فرنان ربت النفوس لدين الله تربية لك إبليس ما ابتسمت منه المكايد الدين لك nee na mu ne ko tàggat nga bakkan yi jaam yi la wër ñii seen bàyyi indi la fi ñu ñu jóg pour ñëw wut si yàlla ak defaru tàggat nga leen ci diine yàlla ji yar nga leen ci diine yàlla ji ba seytaane na mu socc na mu sonne woon ci socc pour ree amul pexe ci foofu ci yow mu ñu ne ko waaw Mansour nan la sa bàyyi nan la bàyyi xaalis nan la sa bàyyi def ba mel noonu mu ne dafa tàggatoon boppam ba ni mu war a tàggate nit ñi ñu mel noonu moo tax mu ne ko awatta fi nafsi awatta fi nafsi aadatin urifta biha sidqun wa zuhdun wa insaafun wa tajwidu xam nga sayyidina Muhammad bu alquran mësee wàcc bu nit ñi génnee bu bu génnee rek jëm ci nit ñi nit ñi danañu xam ni changement am na duñ ko xamee ci waxam duñ ko xamee ci duñ koy xamee ci jëfam ni ñu gisee jëfam soppi ko rek dañuy xam ni ah aaya alquran wàcc na moo tax am ku ne xuluquhu alquran Aïcha ñii dañuy wax ni Aïcha dafa wax ni yonent bi al alquran ay jikkoom benn waaye ni déedéet kaana quraanan yamshi bayna annaasi yonent bi alquran ju doon dox ci biir nit ñi la waaye du ni jikkoo mooy alquran alquran ju doon dox la kon nag Seydi Hadji Malick ñi mu jur ak ñi ko yàlla booleel ñu war a ànd ak moom jëm ci yàlla dafa demoon ci boppam ba tàmmal boppam dëggu dëddu maanu tabe dëggu dëddu maandu tabe xam nga Abdou dëgg yomb na wax dëgg wax dëgg kon yomb na wax dëgg yomb na waaye dëggu moo jafe wax dëgg moom foo dem fekk ko fa waaye wax ba pare <laughs> loo boobaay boobaay jafe moo tax euh, benn mag ni boo bëggee xam mag mu dëggu bàyyi ko ba mu jàngu alquran ba pare bu jàngee alquran ba pare teg téere ba la mu doon jàng jëfewu ca dara xamal ni mag moomu dafay nax boppam waaye dëgguwul waaye wax na dëggi boppam nag dëggi boppam xam nga eh, am na ñuy wax ne gongama boo waxee ñu waaye waxee ñu ne la gongo wala gongama wax nga dëgg wala wax nga sa dëgg lu leen wutale mag ñi dañ daan teral nit ñi ba duñu wax ni diw fen nga dañ naan ko wax nga sa dëgg waaye boo waxee dëgg nag ñu la wax nga dëgg moo tax dëggu moo gën a jafe wax dëgg waaw dëggu moo gën a jafe wax dëgg wax dëgg moom mën nga koo wax fi mu toll nii ba sonn te boo demee weddi sa bopp zuhdu am na ñu ñuy wax ni zuhdu moo di dëddu dëddu àdduna